Música suñu mbokk superviseur di seen qualité la bi nga xam ne rek moo yegg si ci réew mi muy si dëkk si qualité ak si valeur Vega Jasmine Perfume Rice bi sakkan lool te neex lool lii di stage la ci am maanaam gom moom bari lewu ko ba na mu gën ci yaram Vega Jasmine Perfume Rice bi neex ci seen yaase yi seen cuy yi wala seen suppa yi le wala li nga mooy yaase ganaar wala bépp façon togg boo xam ne rek maalo ngay jëfandikoo seen végétation perfume rice bi lañ ci taamu ba na yéen jigéen ñi képp ku bëgg a teral sa jëkkër rek wala am di jàmm yi muy hôtel seeg restaurant yi ñëpp végétation perfume rice la ñuy jëfandikoo ndax mooy qualité bi ñu taamu ak végétation perfume rice da ngay am lu sakkan lu bari idée tiara la maa ñëw dëkk ña da am tiara seen biir kër bi waaw ñu suñ koy tiara rek lañ lay jëfandikoo ya. du mag du xale ñun ñëpp mom lañ lay jëfandikoo tiara ya, jus daal moo ñëw taara Wow, that's nice. Wonderful juice. Tadi bi mooy ban juice? Tadi bi mooy tiara juice. Ala gan la fi? Teera dee du fi gan neexaay bu mu neex. ak bugga bu ko nit ñi bugga moo tax duy doy tiyaara juus moom ku si bugga lu bari fan la ko mun a am na ci bépp bitik si ci supermarket fu ne am li ci gën a neex mooy soo bëggee xool séer nga dem sa MFH groupe waaw foofu nga ko mun a amee am na cola am na strawberry am na mango am na pineapple am na berries am na orange am na lemon am na pineapple coconut am na passion fruit am na picc tiyaara juus bi daal moo ñuy taaral réewi Gambia lii di seen tobaski bonanza ci di wa MFH group muy LG électronique nekk Kairaba avenue ak sunu Gulf Store rek fii ci Sairé Joob avenue ndax lépp liñ soxla woon yegsi na muy spécial tobaski bonanza wala ngeen doxantu rek ca LG électronique nekk ca Kairaba avenue amal leen seen place screen yi nga xam ne ñoo xew si jamono si bépp say sis rawatina seen 3D bi nga xam facilities internet bi mi ngi fa wala seen gas cooker yi nga xam 3 in 1 la oo seen fridge freezer si wala air condition yi nga xam ne ñoo xew si jamono di latest one ak seen music set si LG Electronics ci bépp façon bépp xeeti bagage yu électronique rek gars yi si nañ leen ko kon dama ne LG ak seeni garantie yi muy ñu wóor te àddina bi yëpp ñoo ci mën na kon man kappa yi ma jëndoon ñëpp lekk naa yëpp. Nafi yi fa jeeti. waaye ma saale yi kenn mu ñëw ma yóbbu naa. am dama ci bitig bi nga jëndal ma biscuit. xamee ko bu rajulo piir munkin min sottkeeku biscuit yaa koo gis gaa ñi bari fi nag waaye benn bi bii boo ma jëndalee beneen biscuit bu ko may tee ma fase sa yaay fase mee na mi fase waaye bu ma la ko jàppee dadi ndax ne xaayi muñ ci mil sottkeek bii àdduna bi ba moo waxantoo ndax suma doom yi hmm. dama leen yar ci xàmmee lu baax ak qualité muñ ci mil sottkeek biscuit bii ñu liggéey ca réew Sri Lanka ca compagnie bañ naan Saron Biscuit Limited CBL ñu ko def nii ci gannaaw paquet bi ngeen xàmmee ko bu baax looy dundaloo biir man suma biir bii ak sumay biir yi lu siy mun a lu óor laa doon. am ci bépp bitik si marché si supermarket. ku ci bëgg lu bari mbaa koo ci yéen demal ci MFH group. M U N C H E E Munchie. One small step for man, one giant leap for mankind. Taru Jack na rafetaayam kenn dootu ko werante ndax qualité bu mu àndal la boobu di souvenir peinture bàyyee ko ba fan na ci waa kër suñu kër waa souvenir peinture kenn dooti werante seen garantie ak seen qualité du xolleeku du xoosute ndox du ko yëngal wala seen glazurique peinture bi nga xam ne tàmm ñëw ci woto ak si oil mën li muy def lool ñii di waa suñu kër kenn dootu laajte seen i mbir seen building matériel bi yow miy samp oo ngay waaj waaj a sampa doxantul ba ca makkaani sunu kër sa ajo faju seen pentur bi nga xam ne mooy oyel bi baax ci lii di weñ yi lii di banta yi ak wool yi ak fii nga xam ne rek mooy lépp loo xam ne laaj na pentur yéen waa kër suñu kër yéenay tawte yéenay caat yéen rek ba faw réewi Gambia yéen ñi nga xam ne da ngeen lu baax soppa lu baax te xam ko waa bitik Shoprite ñooy bitik bi nga xam ne ni ñoo xew ci jamono ànd ak jamono ñu ne nag fi mu nekk ni indi nañ leen xeeti lekk yi nga xam ne ni moom ngeen soxla lool ci seen biir kër yi ñu ne li nga xam ne mooy kofi mi da nga fa ñu ne céréales si nag ñu fa ñu ne season yi nga xam ne ni ñooy neexal togga lool demal Shoprite di nga ko fa am ñu ne nag cosmétiques si duñ leen fàtte lool cooking oil yi tamit ñu nga fa yéen mag ñi duñ leen fàtte indi nañ leen xeeti baag boo tànn da foog ne ba lay daxaa sa morom ñu ne xale yi nag yéen moom boo si sore foog ne beneen baa daxaa sa morom ñu ne nag fi nekk ni ñoom nag ñu nga jàkkaaroo fi nga xam ne ni mooy alliance français mbite yi nga ekkati sa téléphone nga call leen ci namba yi Shoprite bi nga xam ne yéen ko moom man ma moom ko jaaraama Shoprite mooy bitig bi nga xam ne ni moo xew ci jamono ànd ak jamono marché jamono képp koo xam ne bëgg ngaa jokkoo waa bitig Shoprite ekkati sa téléphone rek nga call leen ci namba dama ne ndawi Oslo oo ci ngaddum programme bi the grand spectacle Kora Gala concert ajuma ji di guddi guddi biir Oslo guddi ndaanaan dëggantaan ànd ak the king of Kora Jaliba Kuyate Jaliba Kuyate ani Kumera Ban fas kene rajaxe Oslo ak li ko wóor ajuma ji di October live ca Oslo Cosmopolitan di ci fàttaleku the godfather of from Manding Paps Touré Ndaw Guddi lu mu rëy rëy ñu ngi ko jagleel aji yaa xadi special guest aji Amina aji Fatou Damfa aji Jaase Sarr Mbinki Fofana Mama Jabi Seynabou Sarr Fatou Ka Nene Bojang Touré aji Cubbee Jamme aji Ami Diouf Adama Ndiaye Kulum Maane Bojang Aba Kamara Mohamed Thiam Alaaji Bakari Jamme Daouda Ka aji Ngoone Diallo Aïda Sarr Dado Cissé IAC musu Kamben Kafa Women's Forum Lama Wood Production bu kenn des Oslo